ña nga yuuxu di ci rajo bi di wax ak jàmba naan nañ leen tabaxal école ngeen jël leen fa ñoom ñoo ko soxla ak ñun ñi ko soxlu ngeen ñëw di ñu ko tabaxal kon am na leen lu mu ci jamono xalaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci kanamu ñëpp la booba ministère bu ñuy wax Kalidou Diallo moo fa ci suñ baara wax ak moom ne ko dama bëgg ñu ubbi ko suñ baara ñëw laaj ma ci ba ma ca laajee ma ne ko suñ Saliou de moo joxewul digal nañ dañ ko tëj. keroog bu ngeen fàttali ko wala ngeen dellu ci archive ya man mi maa def discours ba boo nee ne école français yi publique yi sëñ bi bëggul mu ci dëkk bi waaye ku ko bëgg ku ko bëgg nag école privée yi bari na fi wala yi ca nga génn dëkk bi waaye ñun nañ xam ne sëñ Tuubaa ba muy sëñ ci dëkk bi wajhalhu deban mashkana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi la daa bokk mu nekk dëkk boo xam ne dëkkub jaamu jaamukaay yàlla waaye dëkkub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 bu leen suñ jumaa doy bu leen suñ dëkk doy doy waaye dëkk bi it nañ xam ne suñ tubaa dafa lu mu ko sant lu ko soññ te dafa waxoon ne tubaab bi dafay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk naa leen ci ñoom ñàkk nañ ko bu faw koo xam ne njëkk nañ ma ci moom it ñàkk faw kon kon nag wane ne ne suñ tubaa tubaab bi ndax ñi jànge ñu jaar ci daari alxuraan ku ci jàngaat njàngum français du la soppi mukk ci àdduna te loolu mbooloo bu du jeex na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 di leen forcer ne ne leen lañ leen di jàngal nañ ko xam ne loolu du ma ko def. li ma koy tëjee nag mooy ash-shaytaanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahshaa wallaahu ya'idukum maghfiratan maghfiratan minhu wa fadlan dafa am sama génn kilifa bokk na ci njabootu Serigne Touba gi gën a mag di borom Pastef bu kawe deux mille 2001 loolu kon mën na ñaar fukki at ak ñett jërën damaa waxoon ne ma ñun ñi bokk ci Sëriñ Tuubaa man doyloo Sëriñ Tuubaa te bañ a wuti leneen lu dul ndax képp koo ci gis mu koy def kat daa jàpp ne mbirum Sëriñ Tuubaa bi bu sàngam mbirum Sëriñ bi day jeex wala day yàqu mu ne kon mën naa fexe ba lijjanti sama bopp boobu yëf de day yàqu yi bu ci bokk mu ne ma nag liñ ci Sëriñ Tuubaa defal ma ba ba ba ci suñu dund wóor na yi di dundaat lu kopp kon nag dañoo war a ba bu ñu wóoroon ne waxtu sàngam bu ci àggee mu jeexee ñu gore def ne nit ñi man ba moo ko waxee ba dëgër foofu laa dem loolu nag daa mat a bàyyi xel bu comme lu gën a téere